ndajeem tay bi niñ ko defee tay ji comme nous avons amee habitude di ko def chaque euh, année bu ouverture bi djégé si tay si ñaaru poñ la won première poñ bi dañ don seetu résultat yi deuxième point, bi ñu don euh, préparer euh, ouverture des classes 2021 2022 si premier point, bi seetu résultat yi gis nañ né Rufisque Ouest cinq ans 6 ans à chaque fois moy jël premier ce département bi ce résultat yu bax yu may am te résultat yoy li solo moy jàppale bi xamné commune bi nek na ci ginnaw ginnaaw élèves yi ndax bo waxé bo waxé élèves rek wax nga école wax nga enseignant wax nga yépp donc maire jàppale bi mi jàppale école yi dafa feeñ si résultat yi motax 5 ans 6 ans ngi nii commune bi moy jël toujours première ndax intrant yi wax ko sank photocopieuse yi moko joxe imprimante daf koy joxe day joxe ay papier day joxe encre ouverture des classes biñuy wax ibbi tey jàng tey c'est la seule commune à Rufisque fii boo xam ne moo koy parce que avant euh, le jour de la rentrée dina fekk li wara dem yeb dem li école yi soxla yeb dana dem ci matériel ba xamne ne ubbi tey jàng tey ba slogan boobu Rufisque Ouest daf koy appliqué à chaque fois. waaw donne euh, le deuxième point. bi parce que si deuxième point, bi Nous préparons ouverture des classes bi premier sous point bi dafa nekkoon état des lieux des écoles Nous xool écoles yi nous aussi inondé écoles yi yan aussi si d'habitude sax école yëpp la ñuy désherber yëpp écoles avant élèves yi sont inondées. yi inondé nous xool ñu donc si Covid aussi, aussi pour matériel pour xam luy war a aar élèves yi aar maîtres yi yëpp yóbbu nañu ko si école yi pour aar leen si Covid bi donc si côté boobu moom amuñu dara luñu si kii chaque année noonu la ñuy def depuis pandémie bi taxaw ba léegi noonu la ñuy aaree élèves yi aaroo ko maître yi benn matériel du manqué dinañ yóbbu yëpp sur place ba xale yi bu ñëwee rek dinañ mën a du koy jàng tranquillement loolu moo doonoon sous point bi si état des lieux bi. jàngalekat bu ñëwee dugg si classe am fekk matériel bu mu war utiliser mu am ko xelam day dal. te matériel boobu bu ñëwee sokk ko ci maire bi maire bi daf ci taxaw nu mu gën a gaawe gis nga tey suñu réunion bi dafay convier le ki yore matériel bi ni ko kay toog nga jël besoin yëpp bépp besoin bu xam ne jàngalekat yi sox nañ ko ñu jël ko pour leen mën ko mën leen ko jox bés bu bu ñu waree commencé jàng donc loolu dafay dalal xel ndax boo duggee ci classe gis na yow li nga war a utiliser yëpp pour commencer sa jàng mu ngi nekk sur place sa xel day dañ moo tax lëkkaloo bi am entre enseignants yi maire bi mu nek lëkkaloo bo xamné ne bu rafetlu la toujours dañ koy rafetlu parce que maire bi fay dalal xel yi enseignants